bintu man sama diine def ma ñor bés bu ne ginnaawu ustaas mu jàngal ma lan mooy lislaam ak samay wareef ngir defar samay jikko salaamaaleykum ustaas wa rahmatullahi bintu rasul ustaas ñan la koor wàcc ah, bintu ñëwati nga sama doom ji ci laaj bu am solo waaw ndax yàlla subhaanahu wa taala mi santaane koor dafa am ñu mu ne ñoom day tegu leen koor boo demee ci alquran yàlla danaan fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin oxar nee na su fekkente ni da ngeen a feebar wala ngeen nekk ci tukki su leen neexee da ngeen dàq koor ga ba beneen yoon ngeen war ko defaat mooy lan boo feebaree lislaam bëggul kuy lor boppam wala tulqu bi aydikum ila tahluka moo tax mu ne la bàyyil ba wér nga soog a woor su fekkente ni da ngaa tukki yëg ni tukki bii kat mënoo ko boole koor su la neexee nga dog après nga fay waaye nag wa an tasumuu xayrun lakum soo wooroon moo gën ci yow kon ñii ma la limal yëpp koor wàcc na leen waaye nag dina leen waraat waaye am na nag ñeneen ñoo xamante ni bintu rasul koor wàcci na leen te du leen waraat ki nga xamante ni dafa mag moom la yàlla naan wa ala alladina yutiquunahu fidyatu taam masakin aw miskin ki nga xamante ni kat attanatul koor ndax aajam sori na mu profité nag ni maam yi ci kër yi yaay yi ci kër gi papa yi ci kër gi tey ay mag lool wala maam yu góor yi ci kër gi tey ay mag seen âge sori na koor yombatul ci yéen ndax seeni organ attanatu ko yàlla topp leen ci dara maam booy baay booy yaay booy yàlla toppatu leen ci loolu daara kon nag bu leen woor bàyyi leen ñu génneel leen lu leel miskin loolu doy na ndax yàlla xam na ni ba ngeen koy man yéen a ngi koy wooral ki nga xamante ni nag bintu rasul dafa feebar muy maladie incurable maladie boo xamante ni yaakaaru ci ni dina wér moom mu ngi ànd ak moom jëpp muy feebar boo xam ne dafa continuer ak moom docteur yi yaakaaruñu ci day wér kooku it nag du woor waaye day leel miskin ki nga xam ne nag bu wooree yaakaar ni dina wér kooku la ni mooy fay waaye ki nga xam ne feebaram bi mën na ko topp à vie moom day dootul woor waaye day leel miskin ma dolleel la ci jigéenu wérul bi kat moom bu xoolee ni ëmbam bii mu ëmb su wooree mën naa lor wala mu lor li mu ëmb bu boobaa nee nañ ko bàyyil ba après nga fay waaye kii nàmpalit aussi nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax moom it loolu lañ ko wax ni ko bu dee da nga yaakaar ni mënoo boole koor gi ak di nàmpal sa doom mën na jur lor mën na bàyyi ba après waaye it nag da koy fay nañ ci bàyyi xel waaye jigéen ji nga xamante ni waxoon naa la ko dafa gis mbaax muy jamono yi jigéen di gis nekk ci ay période am jamono jooju de koor wàcc na ko waaye su paree da koy fay jigéen ji am doom jamono jooju muy gis loolu muy gis koor wàcc na ko waaye su paree daal da koy fay bintu rasul daal ñii daal wax naa la di la koor wàcc na leen. jërëjëf oustaz. ba beneen incha allah.